mbokk yi nu màggal borom bi taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bakk di julli tey selmal ci muhammad yi sunu xutba tey mi ngi tënku ci qaala abu bakr ana qaala abu bakr ana man la wala maa ko def mooy wax ji mbokk yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di ko dénk bépp jullit ak it ñu góorlu ci ay dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jéem waxtu wu nekk ndax dénkaaneem yiw rekk moo ci nekk pour ñun lu ñuy jëriñ la ëllëg xool leen ku toll ni yonent bi professeur bu toll ni moom walla sax darajaam ëpp na ko benn bis dañoo julli fajar ba pare moom ak i saxaabaam ñu génn ci biir ci taxaw di nuyonte kenn ku ne di laaj sa moroom naka sa waa kër yonent bi war leen a jàngal ci benn mbooloo ñoom ñépp poser leen quatre questions quatre questions yooyu yépp saxaaba yépp a ngi taxaw yonent bi ne leen man asbaha minkumul yawma soo ima ana kan ci yéen moo xëy woor te yàlla rek tax saxaaba yépp noppi parce que ñoom du ñu fen su doon ñun amaan na nga jéem a baax lu defar baax baax lu boobu dalay yàqal ñépp noppi Abu Bakar na yonente bi man man de xëy naa tey woor muy bu doon examen Abu Bakar tàmbale naa am ay point ñeneen ñi amuñu point yonent bi posé waat une deuxième question ne ana kan ci yéen moo gunge néew tey ñu yóbbu néew xam nga ñun buñ ko laajee daf ñuy jaaxal ndax ci fajar ñu laaj laaj boobu ku gunge néew tey dana jaaxal nit ñi mais ci ñoom. nit heure bu gaañoo ndax dëkku àll la woon jamono boobu mënuñoo denc koor mu jëm benn waxtu wi ku gaañu rek waxtu wi nga gaañu dañ lay denc Abu Bakar ne ko man saxaaba yëpp noppi kon Abu Bakar am na deux xëy na woor muy ay conteneeru tuyaaba woor te yàlla tax waaye xëy na it nag ñuy yóbbu néew mu ànd ci avant muy julli fajar yonent bi laajaat troisième question ne fa man at'ama minkumul yawma miskina ana tey moo yëkkati alalam dimbale miskin dépense këram ana kan ci yéen moo ko def tey saxaaba yëpp noppi Aboubacar ne ana tey dimbale na ay miskin jox leen dépense dimbale leen allahu akbar Aboubacar rek tontu. min baynihim kibaaru sahaba muy trois questions bu fekkoon ni vingt sur vingt la ñuy laaj Aboubacar tàmbale na am quinze points ndax benn bu ci nekk am na ko mu ñëw ci dernière question bi ne fa man aada minkum al yawma marido ana kan moo seeti ku feebar ñëpp noppi Aboubacar ni ana kon ñeenti mbir Aboubacar am na ko ci ummatu Muhammad ci devant kibaaru saxaaba kenn ci ñoom dabut ko loolu am na lu muy junj li muy junj mooy Aboubacar mooy àndandoo yonent bi jiitu ñaareel bi Aboubacar moo war a remplacer yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi bi loolu amee lu yonent bi wax dafa wax wax bu am solo. nee na ñeenti mbir yi yii Aboubacar def ku mu daje ci yow ci benn bés nga def ko nga xëy woon yàlla rek tax gunge néew yàlla rekk tax seetu ko feebar yàlla rek tax dundal miskin yàlla rek tax yonent bi ne majtamaana fi mriin illa daxalal janna nee na ñeent yooyu duñu ñu daje ci nit lu dul mu dem àjjana mbokk yi ñeenti mbir yi ndax mën nañ koo appliquer ci benn bis ana lan mooy seen ngëneel du jeex ana lan moo ci nekk ci ay tuyaaba du jeex mbokk yi premier bi mooy ban première bi mooy xisaalu sawm koor tuyaaba bi ci nekk ngëneel li ci nekk yow jullit bii yow xale bu góor bi yow bu jigéen bi yow soxna si yow màgget mi toolu yàlla ngi sa kanam waxtu wu nekk mën nga cee bay muy lan weeru koor te gis nga li gën a doy waar nekkul weeru koor de mais après weeru koor mën ngay toog nga musal sa bopp ci safara mooy nga jëkki rekk woor te yàlla tax xanaa xamoo ni koor pakk la buy dox sa diggante ak safara saa boo xëyee woor te yàlla tax day taxaw ci buntu jahannam soo naree dugg mu ne yàlla kii di dugg daf ma doon woor ci bëccëg yi mbokk yi koor yàlla ko moomal boppam nee na kullu amal ibni aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi rawahul buxaari nee na doomu aadama lépp lu mu def ci tuyaaba dañ ko koy fay malaaka yee ko koy jox maa ko sant ba mu des koor koor man maa koy fayal sama bopp xanaa xamoo ni boo wooree ci yoonu yàlla te yàlla tax yonent bi ne man saama yawman fi sabilillah ba'ada allahu wajhahu an innaari sab'ina xarifa nee na ku xëy woor te yàlla rek moo tax nga woor nee na soixante-dix mille ans yàlla dana la ko soril sabara sab'ina xarifa soixante-dix doxu 70 ans yàlla dana la ko sorel safara nga xëy rek nekkuñ ci weeru koor nga ni tey damay woor ngir yàlla damay woor ngir jaamoo ko yàlla yàlla da lay xëcc ba sa digganteeg safara doxu 70 ans la kon li muy tekki weer wu nekk boo ci wooree ñetti fan mooy mucc nga ci safara li muy tekki weer wu nekk boo ci woor jeudi ak euh, lënd yi yaa ngi mucc li muy tekki mooy boo toogee mu neex la rek nga woor yaa ngi sonal sa bopp sabar kooku mooy premier niveau bi mooy ñépp mën nañ ko yow miskin bi mën nga ko yow xale bu góor bi mën nga ko waaye yow bu jigéen bi mën nga ko xanaa xamoo xëy woor te yàlla tax tuyaaba bi ci nekk kenn xamul ni mu topp ñaareel bi mooy shuhudul janaza te tey ñu bëri amuñu jotam gunge néew sa mbokk jullit gaañu sa dëkkandoo gaañu koo xamul sax gaañu nga jóg dem ca dëj ba bu ñu waxee dëj mooy bi mu gaañoo ñu koy sang ngir waajal ko jullee ko yóbbu ko nga dem te rek yàlla rekk tax nee na loolu dafa bokk ci àq entre nit nit humanité ci boppam seeni àq bokk na ca bu sa dëkkandoo gaañoo nga dem même dul jullit dema waaye jarul ngay dem ba ca armée la demal nga jaay sa dëkkandoo gaañu na jullit la xamoo ko ci koñ bi la dëkk jullit la amaan na romb nañ la nga dëkk ci wetu armeel yi wala nga doon dox dajeeg ñu téye jullit di ko suuli nga am jot mbokk yi bunt bu ubbeekoo ngoog yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dawal xaqul muslim ala al muslim xams wa iyadatu al wa ittibaai al wa ijabatu daawa wa tashmit al aatis muttafaqun alayh yonent bi nee na seen àq doomu aadama yi sa àq ci sa moroomu jullit juróom la fexeel ba juróom yi nga téye ko soo ko defee doo amel kenn àq ñu ne ko ban ban la mu ne raddu salaam su nit rombee ne salaamu aleykum mbokk loo jàppoon bàyyi ko boo doon wuyu daggal ne ko wa aleykum salaam boo doon bind daggal ne ko wa aleykum salaam bu fekkee sax da nga doon julli julli sax kenn du la wax nga ne ko wa aleykum salaam ci làmmiñ mais nga junj ko ko ci jëf muy fay kon fay nuyoo farata la amul lenn ci kaw suuf lu tolloog ñu nuyu la nga bañ a fay yorewoo ko kurus yoroowee ko wirdu benn tariqa amut doole bu tool noonu ndax tariqa yépp ci suufu islaam la ñu nekk islam muhammad ay njiit li te muhammad nee na bu ñu la nuyoo fayal kon amoo droit nekk ci benn wirdu ñu lay nuyu nga naan uhu uhu uhu déedéet daggal uhu du fay nuyoo ki la romb dalaa nuyu ne la asalaamu aleykum du da wir wird jàmm nga bëgg tuyaaba nga bëgg yàlla nga bëgg yàlla mii borom jàmm yonent bi mu yónni nee na daggal la ngay def ne ko wa aleykum salaam continue sa wird waaye nga ni doo ko dagg di def doo xam doo mbir yi fan lay tege kon loolu moo jiitu bu ñu la nuyoo fayal nee na ñaareelu àq bi ku feebar nga yëg ko demal nga seeti ko ñetteel bi bu nit gaañoo demal nga gunge neew bi bu ñu la yëgalee céet demal céet la islaam wax céet bu ñu jaawale ay ngénte ak i tuur ak i xew-xew yeneen yooyu yëpp du cérémonie ci islaam ngénte du cérémonie yeneen xew-xew yi du cérémonie céet moom bu ñu la ko yëgalee céet danga war a dem boo amul ngànt danga war a dem céet dong la islaam wax waaye nag nit dalay mere ci dama am ngénte ñëwul dama am lii ñëwut dama am laa ñëwut déedéet islaam nee na kenn du mere ci ay ngénte ci ay xew-xew yu tegul fenn nit li nga ko mën a meree mooy ciit am ñëwul te amul ngant bu amee ngant wàcc na ko kon bu ñu la yëgalee ciit soo mënee dem demal ñeenteel bi mooy wala juróomeel bi tashmitul aatis sa mbokk dëkkandoo toog tis suuli ne alhamdulillah nee ko yarhamkallah yonent bi ne na juróomi mbir yi ngeen siq ku ko matal matal nga sa digg dëkkandoo mbokk yi bokk na ci ngëneelu yiw yi mooy sa mbokku jullit gaañu nga ànd ak moom dana dalal njabootam dana dalal xelu waa bi dana wane ne yow kat ab dëkkandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man shahida al janaza hatta yusalla alayha فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين عظيمين متفق عليه nee na ku gunge néew ku ñu yëgal dëj nee nga dem ca ba ñu jullee ko boo taxawee ci jullee gi am nga qiiraat ñu ne yonent bi lan mooy qiiraat mu ne montagne Uhud mille mètres ci kaw nga xam ni bu la yàlla dimbalee nga aji ba dem ma Madina taxaw Uhud fële ngay taxaw di ko xool da nga naan saxaaba yi fee la ñu taxawoon di xare noo kii ñii kenn du ñoom montagne boobu ni mu toll yonent bi nee na boo fekkee néew bu ñu jullee nga taxaw julli defal nañ la boobu ci say tuyaaba nee na ñu yóbbu ko di ko suuli nga taxaw defal nañ la ko muy ñaar ñaari montagne Uhud yawma alqiyaam wal waznu yawma idin alxaq bu ñu tegee balance bi di natt jëfu jaam yi keroog ba nga gungee néew am nga lu tolloog montagne Uhud ñu teg ko ci ñaata poids nga am ñaaram loolu mooy meslal jabalayni adimayn mbokk yi ñetteel bi mooy ban ñetteel bi ci examen Abu Bakr boobu nga xamante ne réussir na ko d'office mooy itaamu taam itaamu taam mbokk jullit jox ko mu lekk wala nga jox ko xaalis wala lu mu dafa bokk ci taaru islaam yërmande bokk na ci rafetub islaam dimbale ak solidarité waaye bokk na ci jàppale nit borom bi ne falaqataha mal aqaba wa ma adraka aqaba fakku raqaba aw itaamun fi yawmin zi masgaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba nee na nit dugg coona dugg noflaay ñu ne luy loolu mu ne goreel jaam sa alal boo ko amee goreel ci jaam am nga ajjana miskin bu néew doole koñ bi am nañu fi néew doole yëkkatil nga jox leen loo am jox leen donte daggitu ma jox leen ko waaye li nga leen di jox na nekk loo bëgg bul jël desuti ceeb yi jox leen ko bul jël xooñ yéeg leneen jox leen ko yëkkatil ci li baax jox leen ko jox leen loo xam ni suñu la ko joxoon nga xiif di ko lekk waaye bu leen jox loo xam ni suñu la ko joxoon nga dummóoyu loolu du sarax kon génneel lu am solo jox leen ko bokk na ci miskin nga jox ko kon ndeke ki néew doole nga dundal ko tuyaaba bu rëy la ñaata borom alal la ñu am ñaata ñoo xam ni mën nga xëy say dëkkandoo nga di leen defal te yàlla tax ñaata Abu Bakar da koy def di ko def di ko def ba jël dëkkandoom dëkkal ko ci këram muy ummu mistax mbokk yi yàlla nga ñuy nettali waa safara bi ñu duggee safara malaaka yi laaj leen lu leen dugal safara ñu ne ko walam naku nutimul miskin li ñu dugal safara mooy daawuñu saraxe lekk daawuñu joxe lekk borom bi ne wala yaxuddu ala taamin miskin nee na ki bon dëgg mooy ki ñaax nit ki muy dimbale ay nit soo amul loo joxe tibbal plaatu ceeb nga joxe tibbal ci li nga lekk nga joxe dëkkandoo la dafa néew doole amul joxeel surtout nag jigéen ñi ñoom lañu ko daan taggee ñu war a gën a taxaw ci loolu bokk na ci mbokk yi yonent bi nee na inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa baatinuha min zahiriha aaddaha allahu liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa salla bil-layli wan-naasu niyaam yonent bi nee na ajjana am na appartement yoo xamante ni ni ngay gisee ci biti ngay gisee ci biir loolu moom xam naa ni maçon yi ci àdduna mënuñu loolu moom tabax bâtiment boo xam ne fii nga taxaw di xool noonu ngay gisee ci biir loolu romb na jama romb na or loolu moom gars yi mënuñ ko xam naa ne architecte yi dàq desi na ci Sénégal mënuñu bu mel noonu mbokk yi yonent bi nee na yooyu boo taxawee ni ngay gisee ci biti ngay gisee ci biir ñu ne ko waaw yonent bi yooyu apartement pour kan la nee na yàlla mi ngi ko préparel ki def ñetti mbir li man ataama am ki lele nga xëy jox nit dépense sa dëkkandoo ñëw diis la dépense nga jox ko nga jënd jox ko fii sabilillah nëbb ko te yàlla tax dimbali ko ci néew dooleem ak néew pexeem ak néew kàttanam waaye nee na ñaareel bi ngay nuyoo asalaamualeykum koo romb ne ko salaamualeykum nee na beneen bi bokk na ca nit ñi guddi ñu ngi nelaw ngay julli wa salla bi leyli wan naasu niyaam nee na kër googu nga xam ne ku gis ci biti gis ci biir yàlla nga ko prépare ki def ñett yi kii lele di nuyoo di naafila guddi lele nuyoo naafila guddi lele yomb na. li nga am ngay joxe kenn ku ne li nga am ngay demee marché joxe nuyoo yomb na asalaamualeykum wa rahmatullah na ngeen def même balaa ngaa tudd faal mbay jóob neel asalaamualeykum ba pare ndax loolu muy mooy ñaan bi nee na guddi donte ñaari rakka nga taxaw jullil ko yàlla kër googu di nga ci am apartement boobu laa laajuñ la ci xaalis caution bi xam nga mooy lan ñetti yi li man at'ama ta'am nga lele wa afsha salaam nga nuyoo wa salla bil layli wa naasu niyaam guddi bu nit ñiy nelaw nga julli mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi nee na képp kuy dox ci mbiru miskin yi problème bu julli ñi ku ciy dox fexe lu ñu lekk fexe lu ñu naan tey nag dafa metti tey boo ci dee dox di ko wax ay jullit xalaat yu bon yi nekk ci ñoom mooy seytaane koy def waa kii li muy laaj ndax mi ngi koy joxe est ce que defu ko ci boppam hey xool ko est ce que li mu kii li mu nàngam seytaane mooy doxalee noonu mais gis nga yow jullit bi xëyal di dox ci aajo jullit yonent bi nee na moo ma gënal ma nekk ci sama jàkka ji 30 jours di ko jaamu yàlla nga xëy dox problème mu benn jullit benn jullit. am bor nga dox ba mu faju wala mu am problème ak jabaram nga dox ba mu faju wala ñaari dëkkandoo yu jote nga dox ba mu faju yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xëy def loolu moo ma gënal ma dugg sama jàkka 30 jours di ko naafila kon xoola tuyaaba yooyu ñaata nit ñooy julli di jàng alquran am ku fi nekk koo xam ne julli farata rek lay def te buñ dajee yowmal qiyaam mu raw leen lan la leen rawee ndekk mi ngi leen rawee ci social ci côté social la leen mooy koñ bi buggul lu yàqu moom daal pa puso lañ koy woowee di jubale rek lay def moom kër gu nar a tas mu defar ko sëy bu nar a yàqu mu defar ko ku mu gis am ak yow jàmm gis nga lii moo ëpp doole di naafila guddi moo ëpp doole di wàcce alquran bëccëg ndax naafila guddi pour yow la alquran bëccëg pour yow la waaye wàllu social koñ bi la am na jigéen bu am jafe-jafe nga waxtaan ak moom dalal ko dimbale ko am na ku feebar nga dalal ko ba koñ bi ñëpp reconnaître ne kii defarkat la kooku yonent bi ne ne sa këram ma nga lay xaar ci àjjana beneen bi bokk na ci dox jigéen ju tas amul borom kër te ami doom nga dox ba mu am borom kër jigéen bi tas am ay doom nga dox ba mu am borom kër walla nga doxal ko ba mu am lu muy dundalee njabootam kooku mooy almutaaxidu bi riaya di dox ci sàmm ay jirim dimbale leen baaxal leen mbokk yi xanaa xamoo jeeg utal jëkkër jeeg day toll foo xam ne moo gën a nekk farata utal ko jànq ndax jeeg dafa am lu mu toogaalee ba pare kon utal ko borom kër bu ko mën a jàppale mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na assaay ala armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah nee na kiy dox ci dimbala jeeg gi ak jigéen ñi seen borom kër gaañu nee na da mel ni ku yore sa jaasi di xeex ci fi sabilillah nee na mukk mukk mukk bul sonn bul tayyi àjjana mi ngi lay xaar allahu akbar kon jullit yi wa fi zalika falyatanaafasil mutanafisun yii yëpp ñetti abubakar def na ko ban moo des ñeenteel wa ma rabiuhunna ñeenteel bi moom mooy iyaadatul marid seeti ku feebar ku feebar nga seeti ko mbokk yi sa mbokk jullit bu feebaree nga dem seeti ko yaa ngi ci digg ëttu ajjana bu feebaree nga seeti ko yaa ngi ci digg ëttu ajjana sawbaan radiallahu anhu ne yonent bi ne inna al muslima ida aada axaahu lam yazal fi xirfati aljanna xata yarji nee na nit bu demee seeti ku feebar mu ngi ci digg péncam àjjana ba mu ñibbisi ñu ne ko yonente bi loolu mooy xirfatul janna mooy lan mu ne meññent mu fa gën a neex rawahu muslim mbokk yi xanaa xamoo boo demee seeti ku feebar juróom-ñaar fukki malaaka juróom-ñaar fukki junni malaaka danañ la ñaanal soixante-dix mille malaaka boo demee seeti ku feebar danañ la ñaanal ba ngay ñibbisi ali radiallahu anhu nee sami'tu rasulallahi yaqul ma min muslimin yaudu musliman gudwatan illa sala salla alayhi sab'una alfa malak nee na amul benn nit buy seetu ku feebar lu dul soixante-dix mille malaaka danañ la ñaanal boo xëyee danañ la ñaanal ba ngoon bu dee bët set ngoon la danañ la ñaanal ba bët set loolu mbokk yi bokk na ci jaamu yàlla bi rëy mooy dem seetu ku feebar seetu ku feebar nag mbokk yi yow jullit góorgóorlu ci jullit bu nekk war na fexe ba ñeenti yi nga téye ko fexeel di xëy di woor bu dul weeru koor boo ko mënee semaine bu ne boo ko mënee defal weer wu ne boo ko mënee defal waaye di leel miskin wërsëg wi la yàlla jox kont yi nga denc da ngay xëy di wëññi rek sa dépense mat na am na ko amul xëyal nga jox ko waaye bul topp rek di wëññi rek di teg borom bi nee na fastabiqul xayraat njëkkante leen yiw yi njëkkante leen tuyaaba njëkkante leen ajjana kon dana leer ni mbokk yi examen abu Aboubacar réussir lu muy dajale mooy ngëneel bi nekk ci gunge néew ngëneel bu rëy la ñaareel bi ngëneel bi nekk ci weeru koor ñetteel bi ngëneel bi nekk ci julli fajar julli fajar ngëneel bi ci nekk góorgóorlu ci su koor gi jeexee nga continuer di dem jàkka ja fajar beneen bi bokk na ci seeti ku feebar ñeent yii ba juróom yii bu ko julli dajalee koñ bi mu dëkk kenn gënu ko fa su yeboon na nit ñi seet ku leen neex wax <coughs> waaye ki yàlla jàpp ni moo gën mooy kii julli ji fajar di xëy di woor ku mu dégg gaañu ne mu dem bu amee jot bi beneen bi mooy di leexal miskin di seeti ñu feebar xool leen mujj gi yépp li yonent bi wax ne mat ca maana fii rajulin aw fi imriin fi yawmin waxid illa daxala aljanna yonent bi nee na ñeenti mbir yi du daje ci kenn ci benn bis lu dul àjjana nekk këram mbokk yi ndeke ñun ñëpp lu ñuy ut du àjjana yàlla nañ ko yàlla may ñun ñëpp àjjana la ñu bëgg yàlla nañ ko yàlla may mbokk yi àjjana ni mu neexee ci fii nga koy liggéeyee doo dem ba foofu di daa jàll kenn du la yóbbu kenn mënu laa garanti kenn mënu la romb waaye li gën a rëy ginnaaw bi nga nekkee jullit def say farata li gën a rëy mooy taxaw ci côté social nga taxaw ci koñ boo fi dëkkee da ngay fexe lu koy defar lu tilim nga sànni lu ñaaw nga dindi lu war a am nga def boo doxee ci koñ gis jafe-jafe te am nga moyen dox dem ci ay ONG ñu indi lu dimbale koñ bi ñëwal mën ngaa indi ay poto làmp indil mën nga indi lu xare yi jëriñu indil xale yi góor yu jigéen yi mën nga leen indil projet yoo xam ne danañ ci defaroo indil lépp loo gis lu mën a jëriñ sa koñ indi ko loolu moo gën a rëy naafila guddi moo gën a rëy wàcce alquran moo gën a rëy di woor ndax lan moo tax yële yépp sa mbir la waaye lii mbiru waa koñ bi la te mbokk yi am nañu yàlla bind loolu muy seen mbir seen foor mi ngi nekk ci dox luy defar koñ bi léeg-léeg seen ay xale yu jàngul fexe ba dajale leen loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel mbokk yi islaam diina ju yaatu la diina ju am compréhension la waaye nag diine la joo xamante ne ay principe am xam ngeen nii mbokk yi jamono yii dañuy dund ay fitna surtout bu weeru koor ñëwee dangay dem ba dangay ngay fàtte ni dañoo nekk ci weeru koor xoolal yonante bi li mu wax ak li Abu Bakar def xool leen ñun tey su weeru koor ñëwee lan lañuy dund ci kër yi société bi lan lay dund dafa mel ni ñun suñuy théâtre kat ak suñuy caaxaankat weeru koor rek lañu tànn di ci fo weer wi gënal yàlla ci fukki weer yi ak ñaar muy weeru koor weer wi alquran wàcc muy anniversaire am muy weeru koor weer wi yàllay kontaan di ko fayal boppam muy weeru koor mbokk yi Sénégal ñu ci kafe diine di fowe diine di def musiba te kenn du wax li gëna a boo ci waxee da ngay mujj am ay noom te borom bi nee na lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisaani daawuda wa isa bna maryam dalika bima asaw wa kaanu yactaduun kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluuh kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluuh yàlla ne rëbb naa banu israil bañ naa leen mere naa leen ñu ne yàlla lan moo tax mu ne ci làmmiñu yonent yàlla isa ak daawud dañu daan def lu bon bañ ñee wax ñu bañ tey ku naan lii bon na da ngay bëri noonu kaanu laa yatanahawna an munkarin faalu dem nañu ci mbon ba lu leen neex ñu def rusuñu njaaloo rusuñu sàcc rusuñu fen ñu def lu xaraam rusuñu saaga yàlla rusuñu saaga diine kaanu laa yatanahawna am munkarin faalu borom bi nee na ñii ñoo def lu bon ñun tey foofu lañu ñu toll mbokk yi li xew ci suñu réew di foyee diine ay théâtre kat ci weeru koor damay toog man damay jaaxle yow nga ni théâtre kat nga comédien nga waaye jullit nga bu ñu la waxee doo jullit àdduna bi tukki suñ la nee gëmoo yàlla nga ne daf ma génne nangam nangam imaginons nan la jullit bu góor di théâtre di fowee julli suñu théâtrekat yi julli la ñuy fowee imaginel ngay julli suñu théâtrekat rek ñooy jull ñooy théâtre julli imam bi di fo maamum yi di fo égal li ngeen nekk baaxul loolu lañuy jàngal suñuy ndaw xool leen théâtrekat bu saay-saay bii imam kabbar ngay draguer jigéen ci biir julli subhanallah ci biir julli ngay draguer jigéen buñ la nee lii baax na ñu ne dañoo mën a kaas man nag dama dem ba léegi damaa jaaxle ci Sénégal loo ne xaraam na suba ngeen dégg ay site web jóg Umar Sall taakal nangam nangam taakal taakal mu mel ni man dama fee nekk rek di taakale léegi ñi nga xam ne ñooy tooñ diine di ko saaga di ko fooye ñoom taakale wuñ site web yëpp jóg Omar sàll day taakale théâtre kat yi day taakale waa yaa salaam day taakale nangam ana borom xam-xam yi fi nekk ana kilifa diine yi. ana sëriñ yi ñoom dañuy toog ñuy fooye suñu diine ñu koy seetaan te ñoom bu ñu waxee ñu deñ te ñoom ñii théâtre ñëpp am nañu ay këru diine ku ci nekk am na koy waatee ku ci nekk am na koo gëm ñu toog ni cell di leen seetaan kenn du leen wax ni lii xaraam na même bu araamul sax ci der dafa ñaaw dafa ñaaw sa diine lu sa borom moom julli ñu ngi ko wàccee ca juróom-ñaareelu asamaan julli mu rëy lool yàlla jox ko ki gën ci ñun muy muhammad yonent bi ne ku dul julli du dem àjjana yow nga jël julli di ko foye mooy jeunesse bi bu leen julli na leen jigéen gënal julli jeunesse bi bu leen dem jàkka bu leen gel rombe abordé leen ko jeunesse bi xool leen gis nga àdduna fola dafa am ñu nekk seen ginnaaw waaye ña nekk ak yow mi koy def su ngeen tuubul bàmmeel soriwul mi ngi may xaar mi ngi leen di xaar lu neex waaye na def mbokk yi xoola li ngay xamee ne li ñuy def ñoo ko tey gisu leen ñu koy def ci abe yi duñu ko def waa église bi duñu ko defu chrétiens yi duñ ko def juif yi chrétiens yi rus nañoo théâtre di fooye seen diine juif yi rus nañoo théâtre di fooye seen diine ñun jullit ñi ñooy théâtre di fooye suñuy diine beneen bi këru diine yi fi nekk du ngeen gis ñu fooye leen théâtre kat benn ñemewul jël këru këru benn kër ci këru diine yi fooye sëriñ bi wala mu fooye tariqa bi wala mu fooye xew-xew ba fa nekk ku ko mës a gis wax ma ko ku mës a gis théâtre kat bu fooyee benn këru diine su ko defee ëllëg ngeen dégg ko police jël si ko mbaa ñu dóor ko ba mu dee bu waxee ñu ne daa atteinte kii jàmbur dafa tooñ këru diine mais julli muy suñu kër ñun ñëpp woor mooy suñu kër ñun ñëpp islaam mooy suñu diine mais waruñ koo fooyee loo ci tabax kër lu mu rafet rafet alal boo ci am lu mu rafet rafet bis ma nga lay xaar. borom bi ne qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laa taatadiru qad kafartum baada imanikum borom bi ne na samay aaya sama alquran sama julli moom ngeen di foye moom ngeen di ñaawal amatul ngant génn naa leen islam qad kafartum baada imanikum ku ci bokkoon ci théâtre kat koy def jëlal aaya bi demal ci sa imaamu jàkka mu firil la comme bu ko Umar Sall firee day tàng demal sa sëriñu diine mu firil la ko lu muy tekki laajal waxkat yi ci télé yi ustaas yi ci télé yi di wax di waaraate laaj leen loolu lan lay tekki qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laa taatadiru yàlla nee na kenn bu leen comprendre bu leen wax ni comprendre leen ma de non baal leen ma Sénégal dañuy agressé yàlla agressé Muhammad agressé diine nga wax ñu ñëw baalu nit ñi borom bi ne ku ci tuubul laa tasta laa taatadiru amu leen gànt qad kafartum baada imanikum ginnaaw nekk ba ngeen nekkoon jut léegi yéefar ngeen comme nag alal moo la gënal nga jaay sa diine alal moo la gënal ngay fooyee Muhammad alal moo la gënal ngay fooyee julli alal moo la gënal ngay fooyee sa ngëm-ngëm non yow ku dangereux nga borom bi nee na loolu mi ngi lay xaar beneen bi borom baa ngi wax ak ñi doon fooyee diina inna alladina ajramu kaanu min alladina amanu yadxakun wa ida marru bihim yataxaamasun borom bi nee na saay saay yi tey ñooy fooyee jullit ñi tey tey boo saaga Muhammad ñu ne noo comprendre leen quoi loolu dara nekku ci saagaal benn sëriñ kenn du comprendre boo xasee islaam ñu ne non diine ji ñëpp ko bokk boo caricature islaam ñu ne noo mbir mi liberté d'expression la caricaturel benn sëriñ waxuma la sëriñ yu màggi de xalif généraux suq benn sëriñ bu ndaw rek caricature ko suba nga dégg ay taalibeem kaas léegi ñu tudd benn sëriñ suba nga gis nit ñi génn def marche waaye dañuy saaga Muhammad jaralu kenn mars dañuy fowee diine jaralul kenn mars waxuñu nañ mars mais ñaaw na bépp théâtre kat buy def lii dellu ginnaaw ñett mi ngi may xaar mi ngi lay xaar sa bàmmeel mi ngi taxaw di la xaar te gis nga bàmmeel noo mënti def da fa dugg danaa fa dugg ndax li nga doon fooyee neex na yàlla keroog fa la tontu bay na bu dee kër gu rafet nga ci ut oto bu rafet fii nga koy bàyyi diine mbokk yi dafa am orma dañ koy respecté dañ koy jox cër allahuma ahdina wahdi bina ya rabbal alamin allahuma ahdina wahdi bina ya rabbal alamin allahuma yassir lana kulla asir fa inna taysir al asir alayka yasir allahuma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa aatina wala tahrimna وآسرنا ولا تؤسر علينا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة قوموا يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور